Euh, cette loi d'amnistie aussi jur li nga xam nekk moo di parce que suscité na li nga xam nekk moo une vague d'indignation si ñenn ñi nga xamni tam japp jàpp euh procès li gëna gën soxla que li nga xam nekk moo di amnistie car li ñu waxal dafa xawon diis par rapport ak ay mouvement terroriste et d'autres et d'autres ban jangat nga daal di def par rapport ak forcing bi nga xamni tam ñen ñi japp neen président Macky Sall bëgg nañu ko daal di war a mën a forcer li nga xam nekk moo cette loi d'amnistie waaw <clears throat> dafa question journaliste en tout cas une hmm. question euh, ironique que j'ai j'ai hmm. beaucoup aimée. daf madame le ministre man dama ragal parce que li tax mu ne ko da ngeen terroristes hmm. da ngeen da ngeen libéré maanaam ñoo xamante ni dañuy taal réew mi. Hmm. maanaam ko bëgg wax que ni vous nous avez vendu en tout cas le slogan du terrorisme que le Sénégal euh, dafa am ay forces occultes. Hmm. Sénégal dafa am euh, en tout cas ils ont ils ont amené toutes sortes de de de vocabulaire diabolique. Hmm. pour dire que ñi doon manifester dafa am ay infiltrés dafa am ay forces spéciales léegi nag ngeen ñoo jékki saay moment bii nii ngeen ne da ngeen da ngeen libéré ñaara am soit li gens doon wax dara amu ci ou bien da ngeen libérer ay terroristes ñu naan a terroriser toute la population sénégalaise vous voyez l'ironie fallu. Macky Sall lan moo tax mais ay chargé le procureur est libre euh, de de de de. mais le procureur il est tenu il est tenu il est chargé déchargé le procureur ne doit pas inventer. il est tenu nous mu de ça par nu mu de euh, par par par ben côté code code d'éthique Mm. déontologie daf koy topp fu fu muy ti dem mm. moral da koy topp fépp fu muy munti dem mënoo yor sa réew mënoo yor sa askan ay xale yoo xamante ne surtout am ñoo xamante ne dañ leen jàpp ci manifestation bi mm. manifesté wuñ dañ leen romb daj ci yëf yëf yi ñi ñu bubaale leen yóbbu ñooñu est-ce que ay terroriste lañ ils nous ont bombé ici avec une conférence de presse ñoom ñëpp a génn maintenant dafa am loo xamante dafa am ci loi d'amnistie bi fàllu muy lan mooy que ni boo coup, les avocats d'Ousmane Sonko précisément Juan Branco. Hmm. ils ont saisi notre la CPI la pour que CPI pays a auto-saisiru. Hmm. dossier bi mu ubbil boppam enquête. après hmm. ñi la CPI avait fait une descente ici au Sénégal. CPI ñu il, y va de l'intérêt de Macky Sall d'enterrer une bonne fois cette situation parce que si ça part au devant de la justice, il y a des preuves irréfutables. Il y a des vidéos qui sont maintenant Macky Sall il décide. Hmm. exemple vidéo France 24 démonté ce si journal moi ok en une matinée Macky Sall maintenant décide de tout abandonner. mais est-ce que cela va ramener en vie ceux qui ont été décédés hmm. Maintenant, malheureusement, la loi d'amnistie va également protéger ces criminels. Ils ont tué des innocents. Ils ont tué des Sénégalais. Presque en moins une cinquantaine de Sénégalais en de diggante bi au nom de quoi on doit abandonner tout notre la justice parce que dañoo bëgg alors que c'est-à-dire man nous on peut pas semer le chaos dans le pays et en un moment où on est dans le calme, ni ñu ni mais pacification bi mu la euh, pacification vous devez l'encourager là-dessus. la pacification la pacification commence d'abord à respecter le droit des autres et le droit des autres c'est de manifester Tu manifestation bi toi en tant que force régalienne dañ leen encadré mm. encadrer pour que foule bi bari déversé wu mm. fusil à pompe nit ñoko ko fusil à pompe lu muy mm. wut ci manifestation Sénégal ngay gis manifestation di am les gens ils sont armés comme si ñi ñi dem guerre gis nga matériel yi nga xamante lañ andi won gendarmerie utiliser ko ces matériaux ont été offerts pour la plupart surtout véhicules ils ont été offerts par l'Union européenne xam lan moko taxone matériel c'est pour euh, sécuriser le frontière euh, les frontières en tout cas du Sénégal Sénégal Mali pour que euh, mu tudd sax euh, la lutte contre contre nu mu tudd hmm. sax euh, terrorisme wala djihadisme bu nekk Mali hmm. mu bañ a Sénégal ak euh, les infiltrés mais eux ils ont détourné l'objectif en prenant ces matériaux ñu dugal ko ci sécurité intérieure il ñi a leen dem leen garder frontière yi sénégalais ngeen aar leen yéen ngeen jël yooyu dugal ko ci d'abord des terroriser nit ñi ak di di di lor nit ñi maintenant sénégalais xam nga lañ bëgg fàllu dëgg la nga baal la neex mais na na na utiliser nu mu sax au au delà d'amnistie lu tax utiliser wul nan lañ ko waxee sax euh, grâce présidentielle mais gracier mais pourquoi elle a préféré l'amnistie parce que l'amnistie ça efface effaces les manifestations, mais elle effacer les les li nga été crime le le mot crime même a été repris ci li nga xamantene wax nañ ko mm. Mm. day effacer li crime la excellié à la manifestation mm. Fallu dama le dossier là ça ne protège que les forces de l'ordre et de défense eh. peut-être que ñi nga xamante ils ont été des infiltrés ñi leen di wooye ay ñi mm, mm, mm. sénégalais mais japonais le prochain gouvernement dina ñeu peut-être su loolu daal di jàllee assemblée nationale mu abrogé li nga xamné que modi di ce décret enfin d'élucider exactement c'est naturel c'est mort yi nga ko la loi d'amnistie c'est pas une loi éternelle bu fi benen gouvernement ñeu bu ko nexé mun na mun na mun na annuler la loi d'amnistie ce qui fait qu'en tout cas il n'est pas trop tard pour bien faire il n'est pas trop tard pour que tout ce dossier là euh, ñi remettre ko aat ko sur table peut-être que xam malheureusement les présidents sénégalais qui képp pas dem day négocier demam. dañuy Léopold il a été un modèle parce qu'il a démissionné Léopold il a démissionné parce qu'à un moment il pouvait plus gérer le pays le pays était dans une grave crise fait wuñ ko mais hmm. donc Léopold dafa dem parce que crise mon. Hmm. Abdou Diouf bu il a négocié son départ avec avec Abdoulaye Wade. Hmm. Abdoulaye Wade il a négocié son départ avec Macky et Macky est en train de faire la même chose et malheureusement Sénégal euh, a euh, euh, négocié son départ avec Macky Sall. mais demal na Fallou lu. dossier waa PDS suñu la suñu la suñu la déggee. kooka la waa PDS waa PDS da da da da damay wax te yàlla tax rek waxuma waxuma waxuma. ñaa ñaa yaa dugg si waa PDS. maanaam maanaam damay li may wax sóoraale ma si kenn sóoraale ma ci PDS. ay sóoraale ci keneen ak keneen. li may wax bëgg nga a jaara fam suba mu taal laay fam. damay damay damay wax a Sénégal a ah maam jaara maam jaara ñoom ñoom am nañ seen xeex bu leen doy nañ fexe Karim Wade bokk rek ñoom am nañ xeex bu leen doy. alors mais ñu ne Macky. mais ma moo de waaw Aliou Aliou. ma yaakaar ni demu Macky aujourd'hui xam nga dafa am les dossiers qui sont directement liés à Macky Sall. am dossiers ils sont directement imputables à ceux euh, à ses collaborateurs. parce que tay dafa am ay rapports yo xamante c'est des organes légaux du pays ñoom ñoo ko génnee ñu ne lii de yàq euh, nu sax diw ak diw ak diw wala institution institution institué def nañ ko. Hmm. doxaluñ ko yoon. Hmm. ces dossiers là peuvent empêcher Macky Sall de dormir. Hmm. Fall bu lolou wesso euh, nga dem ci le dossier de ces manifestants là. Hmm. ces manifestants tués Fallou. ok nga yakar ni lolu ça ne peut pas empêcher Macky de dormir qui est le commandant suprême de de de la nation <laughs> Macky Sall Mais Macky Sall hmm. mais ñu ne Macky balaa moo retenir Il bëgg a ses arrières et protéger. c'est-à-dire il est il est à travers cette loi d'amnistie là il vise deux objectifs premier objectif bi mooy que ni. Euh, en tout cas protéger ay arrièream négocier départam am ñi muy comme ça en d'autres parties en d'autres euh ça hmm. les les les les les les leaders politiques nga notamment le pasteur, nga ils ont été les plus grands victimes ci arrestation yi. Hmm. ñu mën faire passer l'éponge. Hmm. deuxième bi. il cherche la sympathie nationale et internationale. sympathie nationale manam ko japp doomam nga jékki saari nako bal na la day ah, peut-être que mën am ben ben ben redevabilité envers mm, toi mm. euh, benen bi moy que ni montrer à l'international que nous sommes un un pays démocratique malgré son querelle on a on a en tout cas la force de nous pardonner entre nous mais malheureusement man damay naan ci li xew ni xam nga mm. kan mo soxla bal kan mo soxla bal ki ñu wara bal c'est Macky Sall le Sénégalais wara bal fallu kan ñan ñoo dee est-ce que Macky Sall a perdu un de ses enfants luñ ko yàlla mais quoi Macky est responsable vu que ni mi ngi problème tok Macky Sall en quoi il est responsable de tout ça mm. gis nga force force force force restera à la loi kan moko fi don wax et la loi a fait une démonstration de mais force. Mais si lolu euh, euh, Antoine Félix Diom, nous dit le ministre de l'Intérieur. Mais ministre de l'Intérieur, il le Ismaël ministre de la Justice. Le ministre de l'Intérieur, fan lay le tirer à ordre. Il tire ses ordres au palais de la République. Et len fallu gis nga Durant ces dernières années-là, Hmm de gens qui ont été gouvernés, nous avons fait des gens qui ont presque chaque jour hmm. c'était le ministre de l'intérieur. Antoine nan ngay pour réprimer ceux qui sont dans le pays casser cette révolte là. deuxième c'était le ministre de la justice qui lui disait comment nan ngay justifier au regard de la loi man <laughs> bon peut-être que jarul ñu si. donc Ismaïla Madior Fall doo doon man Macky Sall. lii naka entourage Macky Sall man naka ngay koy légalee ak fa war aw. man sama source fi mako ko aw daal. sama source fi mako ko c'est une personne qui a accès au palais de la République parce que il conduit un ministre de la République. tey war nga ko. donc mom moom ko maanaam ñooy les personnes yi nga xamante ne ces dernières années là ñoom ñoo gëna wër Macky Sall c'est-à-dire. Antoine Félix Diome ak Antoine Félix Diome ak ak euh, Ismaël Madior Fall Ismaïla Madior Fall hmm. donc en un moment aussi qui da koy doral Euh, Antoine ñoom da koy naan dóoral boo Ismaël Madior Fall nako ko la protéger au regard de la hmm. loi. malheureusement vouloir revenir aujourd'hui hmm. avec une loi d'amnistie bo xamantene ce n'est profitable couture hmm. des manifestants. Euh, ne day faire passer toute l'éponge là. en tout cas moi je pense que euh, il est en train de de se protéger la meilleure manière li gën simple moi que na baña a amnistie amnistie c'est un peu compliqué et complexe parce que ça efface mais nan na na ci grâce présidentielle rek. grâce ñi ñak mo gënal gënoon euh, euh, mais ñu ne aussi ñu bëggul la libération d'Ousmane Sonko député yoy la fas résister euh,